nga xam ni euh, du ma ko du ma ko mën a opposé wu du ma ko mën a agressé itam waaw du ma ko mën a kii donc fi ñu toll nii dañoo toll ci euh, jéem a naxante ci souplesse bay déggoo bay déggoo ci suñu relation mutuelle mais l' essentiel daal mooy li nga xam ne moo concerne ñëpp l' ensemble des sénégalais li concerne ñëpp l' de des sénégalais mais bu dee sama relation moom moom it noonu lay ama relation keneen ak keneen ak keneen donc man sama côté maîtriser naa ko moom it côté maîtriser na ko leneen li ci des rek xanaa mooy euh, yokk consideration bi rek waaw ni ma ko considéré mu considéré ma noonu rek waaw boobu itam xamoon daan di ma ci laaj waaye conférence de presse bi ñëwagul loolu defe naa ni Sénégalais yi bëgg lu baax yëpp a ko yàkkamti woon moom mu nuru woon lu yeex waaye li cliché in ajal xaj na ci jamono boobu dañ doon xaar sëñ bi inauguré jumaa ji mu nekk force nekk occasion ngeen baal ma nag. man li ma soxal. Hmm. mooy yoo ni ji luy sellal dëkku sëñ Touba bi la muy muy muy muy muy Touba. muy di jëm si les interdictions. venant au xalifa général. pour le Mouride Cheikh Serigne Mountakha Mbacké. yi nga xam ni lépp loo xamante ni ji lu dëppoowul ak dëkk sëñ euh, Touba la. ci ay njombe ci ay nag suñu noonu. ak xam a wax waaye loolu waaw. man joxe naa ci exemple rek dem à travers le monde amul benn dëkk booy dem te doo seen menn mbedd ko yor cigarette du tox xam nga loolu amul fenn ku koy def di nga koy nëbb loolu rek doy na sëkk leneen li ci des nag xam nga guro guro pañe guro faaw nga fekk ca yoo xamante ne bi dañ naan dafa sànkar aareen li ñuy tuddee gerte arachide boo fa demee di nga fa fekk lu ñu naan bouché maanaam buuse buuse maanaam yoo xamante ne bi kemb yoo xam ne du mag nun ñii nun ñii suñu couleur bokkuñu ñii dañoo ñuul ñuy xeereer ñii xees ñii njool ñii ndaama loolu moo tax allah kulli halin adduna du mës a jag adduna du mës a jag léegi li fi nekk mooy yërmande ji nu ko tedd ki boole rek waaw te centraliser ko fee ca xalifa ba muy zaalum ñun ñuy daalum yërmande ji kenn ku nekk di ko wan sa waaw lool rek mooy jërëjëf Mbacke Bismillah